moom kontaan nañu si torop torop sax parce que euh, ni ñu jëmee nii nawet bi nii dafay arranger famille yu bëri daf leen di arranger kontaan nañ ci waaw ça vient à temps ñëw na heure daal. waaw mhm. kon pipi pipi daal ñoo ngi nii mais man dama soxla woon état mu dimbale ñu ñun pipi majeur yi parce que sonn nañu daal am na ñoo xam ne ñoo ngi fii amuñu liggéey amuñu dara am na ñoo xam ne sax jakarta sa la ñuy dawal. ay conducteur jakarta te pourtant suñ leen dee tuuti dañu am fenn fu ñu mën a jëfandiku wala sax ñu joxe ay financement financé pipi yëpp après ñoom ñu suivre leen ku nekk sa domaine ñu financé la après ñu suivre la. que def ngeen déposé ay projet mm, man man man def naa man sama projet man def naa ko yàgg euh, bu ko defee yàgg na mais man dugal naa sama bos mais boobu ba tey aw ma résultat. sa jàng nañ ah pour euh, ñu jéem a approché kii bi office bi te euh, ñu kii suñu approché office bi dinañu gën a am kii waaye surtout état mu dimbale ñu mu dimbale ñu mu su aide finance kii aide financier lañu soxla instant yii aide financière.